koy jox parole ki nga xamante dof dañuy fàttaliwaat encore bu baax a baax ni que manifestation su suba bi mooy vendredi 10 novembre dina am incha allah rabbi manifestation bi na c'est pour exiger li nga xamante ne mooy la libération des détenus politiques suñu waxee détenus politiques ñëpp ñoo ngi ko donc départ bi fële lay doon ca rond point ñu jeexalee ko fële ca rond point euh, euh, liberté 5 donc. Euh, ni dof ci Sénégal namoon nañ la lool. jaajëf Gérard namoon nañ la lool. vous avez maa ngi euh, nuyu bu di nuyu ñu ma fekk fii yëpp si euh, si jotaay bi di nuyu mbokk presse bi ñëw yëpp ak ñuy seetaan fépp si àdduna bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu aussi prisonniers euh, détenus politiques yi nekk si kaso yi parce que ñoom ñoo waral jotaay bii nii maa ngi leen di transmettre samay nuyoo. leen transmettre aussi sama compassion man mi génn si kaso yi xam naa la fa nekk waaw gars yi wax rek liñ bàyyi moo ëpp ñaawteef bi yàgg na souffrance bi yàgg na te mu ngi mu ngi ëpp na moom moo wax que ni ëpp na mais débordé na waaye wax nag Sénégalais yi ñu xam lan lañ bëgg bu fekkee que ni ay nit yu baax lañ comme ni ko Baro waxee sànq bu fekkee ni am nañ intelligence am nañ humanisme si ñun. fekkee ni dëkk bi ñu doon woote woo dëkk la si ñun fekkee que ni taalibi Cheikh Ahmadou Bamba yi woote dëgg la si ñun taalib Maalaji Maalik yi woote dëgg la taxaw jot na jug bañ jot na jug dakkal lii jot na seen ay doom ñu ngi croupir ci prison yi ci anam yi gën a metti yoo xam ne nit mënu ko décrire te defuñu dara dara dara dara dara lu dul am benn yëg-yëg bu safaanoo ak bi nguur gi bëgg ñu nekk seen dëkk nekk ay ndaw am bëgg-bëgg am le droit de choisir fi ñu bëgg a bokk ñu ramasse leen raafal leen ñi ñu fekk leen seen kër yi ñi ñu piégé leen ci ay groupe whatsapp ñii ñu saaga leen ñu fay ñu topp leen outrage ñii dañ doon dox di jóge seen ay kër ñii dañ doon jàngi ba wàcc ñu ramasse ñëpp tëj leen ci kaso bi ay weer di leen refuser ay liberté provisoire pendant ce temps ñuy bàyyi ay criminels ñuy génn ki ñu ne moo jiite réew mi yor suñu xalima di di di génne ñeneen ñoo xamante ne luñ dafa gën a garaaw ci kanamu Sénégal yi au fur et à mesure de tout le monde nëbbu ko amul seen kersa booy yi ñu leen di refuser ay liberté provisoire di bàyyi ay nit yoo xam ne c'est des criminels loolu la loolu la président bi di promouvoir si réew mi ak ci jeunesse bi mooy boo transhumé mu yokkal la ndomba tànk bu la OFNAC ak IGE keppe mu yokkal la ndomba tànk. soo nekkee criminel ci kaso bi mu tëj professeurs yi tëj étudiants yi tëj xale yu ndaw yi ci kaso bi bàyyi criminels yi ñu génn loolu la président bi di promouvoir est-ce que loolu mooy Sénégal est-ce que dañuy continuer noppi est-ce que dañuy continuer seetaan xale yi ñu nekk ci kaso bi ak tàncewaayu ak tàngoor bi ñu tàncaloo ci kaso yi ak feebar bi nekk ci biir kaso yi boo yëpp dañuy feebar ci kaso bi yàlla ma yàlla jégal bugguma ko wax di di di seen famille instant bi toll nii on est obligé de wax li xew ci kaso yi. c'est intenable c'est pénible kenn mënu ko qualifier pendant ce temps ñu ne nañu réeral ndaw ñi nañu leen concentré ci leneen nañ fexe du duñu wax ci li ñu war a wax est-ce que ñun dañuy dañu goree di à ce point est-ce que ces jeunes là yu nga xam ne si ñenn yi gas nañ leen suul parce que dañ doon xeexal la yi dañ doon xeexal dëgg ñenn ñi tëj nañ leen ci kaso yi parce que dañ doon xeexal dëgg dañ doon xeexal ñoom seen ak yelleef dañ doon yëkkati seen drapeau dañoo bëggoon taaral seen réew ba du leen nekk moomeelu benn nit ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi pendant ay weeri weeri weeri weeri weer est-ce que ñun dañoo am gore yi boobu noonu mooy tag ci suñu jàmm di dem suñu ay gàmm suñu ay màggal di suñu ay làmb set bàyyi euh, euh, fàtte booy yi est-ce que gore yi boobu noonu moo nekk si ñun il faut que ñun ñëpp aussi ku nekk jàpp ni affaire bi du affaire diw du affaire diw affaire Sénégal la affaire u être humain la est-ce que sa xol bi mi ngi baat est-ce que yow yëg nga souffrance bi am ci kaso yi est-ce que xam nga que ni booy ñu ngi leen comme ni ko Baro waxee deux cent personnes ci benn nekk ñii dañuy taxaw ba suba ñii dañuy toog ba suba directeur bi ñëw récemment moo ñëw di jéem a changé di teg ay dambaloo si kaw pour que booy yi bañ a taxawati wala ñu bañ a toogati non seulement paquetage bi ñu def sax dafa mujjee nekk luxe am ñoo xam ne amuñu paquetage bi dañuy taxaw ba suba neuf heures onze heures minuit une heure deux heures trois heures quatre nga taxaw ko benn place lekkoo ba suur fajuwoo da feebar seen infirmier yi amuñu doole donte seen major yi mën nañu nekk ay jàmbaar boo demee ñaari garde ak lu la mënta daal luxe la sax pour nga dem infirmerie yi est-ce que dañuy continuer seetaan loolu surtout pour des innocents pendant ce temps sàcc yeeg trafiquant de faux billets yeeg xam nga agresseurs yeeg ñëpp ñoom ñi nga xamante si nii ñu ngi féetewoo nguur ñu ngi leen di bàyyi ñu yor seen i jaas yi di def ay vidéo di menacer ay nit ñu def lu leen neex si dëkk bi mu mën nañu nekkatul Sénégal maa ngi wax sénégalais képp koo xam si ni esprit de justice képp koo xam si ni bëgg nga dakkal souffrance bi nootaange bi tooñeel bi bëgg nga ko bëgg nga ko bëgg nga ko euh, dakkal maa ngi lay woo nga ñëw ci marche bi ñuy def suba di ko commencé Gédo ñun ñëpp ñu ànd dox à 14 heures ñun ñëpp ñu ànd dox terminus liberté cinq pour que suñu rakk yi ak suñu sœurs yi nekk ci kaso yi ñu xam ne ñun fàttewuñu leen pour que ñoom ñu xam que ni le combat bu ñu leen mënee c'est pas un combat en vain pour que ñoom ñu xam que ni la peuple amul seen fay mais la moindre des choses bu ñu mën a def mooy ñu jël suñu temps ñëw teew serré groupe yi ba mu ba mu nekk nombre bu bari ba suñu nguur yi xam que ni le peuple est avec ces gens yi mu tëj ci kaso bi donc si loolu lañ leen di woo képp koo xamante si ni gëm nga sa képp koo xamante si ni bëgg nga dëgg képp koo xamante si ni parce que nekkatuñ si état de droit tout le monde le ci jëfi maa tey la ñu nekk ces gens ne respectent plus même textes yi ak loi yi respecté lu leen neex la ñuy def ci justice bi lu leen neex la ñuy def ci doomu baadoole ak doomu sénégalais bu booy gi di dee par milliers bu mu leen jaaxal parce que ñu ñu jiite ñoom ñoo ñuy def lii nga xamante si ni ñoom ñoo waroon nekk les garants de nos lois de nos textes de cette justice ñoom ñoo nekk les premiers à piétiner cette justice ñoom nekk les premiers à piétiner les décisions donc am def loo xamante si nag yàlla du wàcc yónni malaaka yi yéen seen jëmmi bopp yéen ay taxaw fajal ko seen bopp puisque ñi leen waroon jàppale ils vous ont abandonné tey ci nii dëkk boo fa dem quartier boo fa dem banlieue boo fa dem am na góor yoo xam ne ñu leen tëj ci kaso bi di leen considérer comme des animaux alors que quartier yooyu am nañ ay champion de lutte yoo xamante si ni booy ñoo leen def champion yi ñu doon booy ñoo leen jàppale booy ñoo leen jël seen scooter di dàqante di dem ci mbappat yi di ànd ak ñoom ci arène bi fu ñu dem fa di dee ñu oto yi di leen mbëkk ñuy ñu nekk ay champion am ay milliards tey ci kaw booy yooyu noonu la moindre des choses day bu doon dund ay naxar ñu def comme ni Tapha Mbeur def c'est la moindre des choses ñu wax booy kan tey ñu ñëw seen porte drapeau lépp lu leen metti dinañ taxaw ba nguur dootul ñëw dóor suñuy suñuy waa suñuy waa banlieue quest saa yu nguur bëggee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 jëlee fi ay ay directeur teg fi ñeneen ci kanam Sénégal yëpp pour wane que ne ku ànd ak ñun dañ lay dàq teg fi ku ànd ak ñun lépp luñ ci jublu mooy opposition bi dañ am seen fulla nañ booloo ñii nga gis nii c'est des truands waruñu jiite les élections ñoom ñëpp lañu war a dàq te bés buñ ko defee nañ xam que ni li dara sax ñuy dem élection parce que wan lañ leen ce qui ce qui se prépare te loolu yëpp si manque de respect manque de considération pour wan Sénégalais il faut ngeen comprendre benn affaire dañu leen bëggoon xamloo clairement que ni si dictature nekk su ngeen gisee yenn arrestation yi li ñu leen bëggoon mooy yéen ngeen nangu ko seen biir bopp nga ni ah c'est clair que maintenant ci dictature lañ nekk parce que bu kenn nee nañ dem taal kër diw bu kenn nee nañ dem taal kër diw nañ dem rey diw dañ koy bàyyi mais bu kenn nee maintien rek dañ koy tëj six mois wala lu ko ci kaso bi donc loolu li ñu ci mooy Sénégal yëpp xam ni on est en pleine dictature nëppatuñ ko est-ce que nag Sénégalais yi bu xasee ba nangu dictature boobu ça veut dire que dictature bi day ñu ngi koy tant qu'on est leen jox lañ suñu bakkan wala ñu leen tëdd ci kaso bi ñoom nañu xam que ni loolu li ñu bëgg a teg Sénégal du mu ne Sénégal du peuple bu ñuy noot Sénégal du peuple bu ñuy def esclave Sénégal du peuple boo ñu gëm seen bopp toute cette jeunesse ñu jug taxaw ñu nekk si kaso yi dañu war a exiger ñu génne leen par la force amul lu ñuy négocier amul lu ñuy neexal qui ce soit parce que defuñu lu ñu leen di téye ci kaso yi di leen refuser ay liberté provisoire systématiquement wala c'est moche pour un pays qui se dit pays de la Teranga c'est moche pour un état qui se dit état de droit donc j'appelle à la mobili mobilisation yéen ñëpp na ngeen ñëw suba ngeen def ko teew ñu def groupe bu fees dell ba nguur gi xam que ni ce peuple la mi ngi revendiquer la libération des otages politiques et maa ngi leen di rendre un hommage à tous ces euh, en tout cas organisations yi nga xamante si nii abandonné wuñ les jeunes qui sont en prison fu ñu mënta nekk ci Sénégal muy Tambacounda muy Louga ñu ngi dem di leen seet ak di leen nemmeeku nemmeeku seen frère seen ay seen ay famille maa ngi rendre hommage à tous ces gens qui sont restés debout qui sont restés solidaires te xam nga ni ñi nekk ci kaso yi seen drapeau moo tax ñu dem ci kaso yi ñu continuer di leen taxaw seen ginnaaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi baal ñëpp ak jaayeen jëf wasalaam